TV la télévision autrement mm. ak la Bantamba TV mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu mbaax di nuy As Bekaay Mbay xorom ci cin ndeysaan su ma ndijaay su ma xarit su ma lépp nga xam ne tey bu ma taxawee fépp di téye micro di wax mm-hmm. ginnaaw yàlla moom la di nuy Paf mm-hmm. Production di nuyu ñaari champion yi ah di nuyu bu baax a baax le promoteur numéro un Fallou Ndiaye di nuyu sama copain Ibrahima Diop di nuy assistance bi yëpp di am mbégte bu baax a baax a baax Mamadou Mbaye ji ku la ne dafay waxula lu am dafa bëgg la neex rek. Mm-hmm. waaye combat bi du combat bu yomb. ndax combat bi gis nga ni bi mu taxawee bu léegi tension rek nga ci gis. Mm-hmm. ci ñaari mbër yi. waaw ndax ñaari ndaanaan la ñu boole. maa ngi fàttaliku Ada Fass digganteem ak Tafa Mbër. Ada Fass digganteem ak Jokkel. Mm-hmm. Ada Fass digganteem ak Kolifay numéro 2 moo ko boole ci game bi. muy xale boo xamante ni moo doon le premier tigre de Fass. mbay Guèye donn la deuxième tigre de Fass Moustapha Guèye dëkk ba mu jógee dëkku mbërëntaan la mhm. moo tax toujours ci ay kombaawam ci bëri lay jeexee mhm. Xaarim Njaay mi ngi koy wax léegi suma mag suma xarit maa ngi koy nuyu démb rek ñoo nekkandoo woon fële ca télévision bi DTV macha allah DJ Yves jërëjëf mhm. Ada Fass dama la dégg léegi nga ne Zarko dama la xeeb ma dégg la nga ne da nga nekk ci yoon est-ce que xeeb mbër warati na la ndax maa ngi fàttaliku sa bés ba ak Onde le Fou. stadium Iba Mar Diop la woon. dafa mel ni lala daan ci xeeb ko. Hmm. lu moo moo moo. la ko la ko dikkee la ki nga xamante ni mooy Onde le Fou. waaw da nga ne nekk ci yoon yaay mbëru Ndakaaru. ñun la yaa ñun la yaa ko ñëwal. non xeeb bi mooy mooy tegu ma ko sama bët Modou. Hmm. loolu mooy xeeb dama ko xeeb mooy comme boog nekkul moo may téye si làmbu Modou. kon fi maanaam fi nga jëm kii du la fa yeg yegg. Modou trois ans trois séances laay entraîné. du moom moo tax a jóg quoi. on le fou moo ma def mbër. Hmm. on le fou moo def mbër maa ngay nuyu au passage champion. Hmm. moo ma def mbër. maa ngi koy sant bu baax. kon de man maa lay def champion. kon moom. moo tax <laughs> moo tax ma gën a rey sama bopp si laamu Modou. Hmm. xamoon laamu dama doon bokk def benn séance dem igri ba koor ak ñibbi si. trois ans trois séances nekkul kii moomay téye. bay bal bu ma jógee foofu ma ñëw ci Zarko Ada ba tey ki ngay dajel ndaanaan la mhm. ki ngay dajel bésam ba ak baay Baye Mandione fii ci arène national mhm. gis nga bëre bu rëy bi mu fa bëre keroog la mu indil baay ma Mandione loolu est-ce que Ada Fass antan nga loolu mu jógee ci ma Baye njoon ñu jox ko ki nga xamante ni mooy mbay guy gi mbay mhm. guy gi ku ko xam-xam ni champion la ndaanaan la dafa bokk ci làmb doon rampe waaye bi mu ñëwee Zarko mii moo ko freiné. Mm. te booba temps coow li bari na lool. fu mu jàkkaarloog sarko ne ko fu ma la jàppee làmb ji jeex dinaa la duma dinaa la daan. Mm-hmm. Zarko Ada mii ngay dajeel xale la dafa nekk ci yoon bëri bi dafa mat sëkk dafa fees dellu est-ce que yaa ngi bàyyi xel bëri bi Ada Fass yor. ci xeex bi ci bëri bi nee nga du xeex mais léeg-léeg bëreem xeex moo koy ubbi. day xeex ba pare soo ko bëri dara ci moom xel. dama ne léeg-léeg bëreem moom. muy bëri muy xeexam bàyyi ma dara xeex ba pare doo ko bëri. bàyyi ma dara xel ci moom ci ci dara. ci bëri bi mu bëri bëri bi ci lépp. lu tax bàyyi woo xel. nga ne day jum lu tax woo xel. bàyyi ma xel ci moom ci dara dara dara dara. ndax lan day jum parce que dafay ñëw pour daanu si. da day ñëw pour daanu si ah ok. da ma daan la. te da nga daanu ba jaaxal ma. ba pare dafa mel ni à tout moment saa bu ngeen jàkkaarloowee daf lay daf moom dafa am façon bu may bu muy bu mu lay dikkee boo xamante daf lay énervé loo parce que saa su ne damay gis ni booy wax xool ngay waxee sa diggante ak Ada Fass est-ce loolu arrangé non sa waay yow. kii hmm. munul àggul sax fu mu may énervé loo. Hmm. Hmm. jërëjëf waaye nag balaa may dem Pa Abdou Fall yaa ngi dellu njukkal koo xamante ni c'est un grand monsieur dans ce muy ministre Matar Ba li mu def ci réew mi ci lu baax. bari na sport bi la jiite woon waaye réew mépp ñoo seede ak mbaaxam balaa nga ko xam nga fekk ko fële ca Fatick gëlëm mu dëkk muy sët la ci Maba Jaxu Ba. waaye sët la ci buur siin moom doo Ndoofeen Juuf moom mi seere woon wax ni Bàmbaa fi gën foofu moo tax Matar Ba mbaaxam ak yaram ak ni mu fonke doomu aadama mën na ko may lu ne ci àdduna moo tax bis boobu suñu bés la dinañ ci dem ba jeex ndax Matar Ba jaral nañu lu ne ndax def na fii ci réew mi loo xamante ni ci wàllu sport bi dootuñu ko fàtte sport bi dootu ko fàtte def na ci làmb loo xamante ni axlu làmb dootu ko fàtte souvenir indélébile la moo tax ñu ngi koy ñaanal fu mu mënti nekk rek yàlla na ko fa yàlla di defal jàmm nit ku baax la gisante wunu waaye fu nu toll suñu xel mi ngi ci yow ak suñu xalaat di la ñaanal ndax nit ku baax nga prince mon frère jaajëf kontaan naa Baba ko maa ngi lay siyaare bu baax a baax